Mini ñuy matinal, ci voilà avec euh, une bonne tasse de café pour euh, réveiller toute l'équipe le matin n'est-ce pas à la Mine euh, maa ngi lay nuyu di la ziar ma jàmm nga waaw maa ngi sant yàlla soxna nata mhm. di la nuyu bu baax di nuyu sama ma fekk ci plateau bi di nuyu téléspectateurs yi di am yaakaar que ni lépp lu ñu fi wax dina amin incha allah comme ni nga koy defee rek Alaaji Daawda mhm. alors tey jile euh, da ngaa bëgg a taxaw ci euh, mbirum Sonko ak aji Sarr mhm. euh, ñu bëgg a xam lépp mhm. ci li ñuy duppee ordonnance de prise de corps bu ñuy sukkandiku ci wàllum yoon ban définition la joxe ci loolu loolu mooy lan Alaaji Daawda waaw ordonnance de prise de corps benn décision bu nga xamante ne dañ ko prévoir ci matière criminelle rek la am bu nga xamante ne dañu war a juger nit ci chambre criminelle avant chambre criminelle ñu def taarix tuuti avant chambre criminelle cour d'assises moom moo au hmm. Sénégal La euh, cour d'assises nak, dafa nekk au début dafa amoon ñetti magistrat professionnel ak ñeent ñu nga xamante ay juré la ñu woon ñoo xam choisir ci population sénégalaise pour que ñuy juger ñi nga xamante ne ñoom ñi traduire devant la cour d'assises euh, mais booba dafa amoon le juge d'instruction bu mësaan a pare liggéey ba pare fait renvoyer l'affaire au niveau de la chambre d'accusation daal di koy wax ni man pare naa kii traduire devant la cour d'assises et à partir de ce moment là chambre d'accusation M. si a moom mooy jël li nga ordonnance de renvoi devant la juridiction du jugement devant la cour d'assises mais également une ordonnance de prise de corps Madame, nit ki bu connaître... ne dañ koo bàyyi woon liberté provisoire dañ koy dem jëliwaat daal di est en prison donc chaque jour gendarmerie day dem prison ko indi ko ñu jugé ko ba paré mu delloowaat ko buñ ko condamné mu dal di purger penam ci mhm. prison bu fekkee ni dañ ko acquitté bu boobaa mu dogo a ñibbi këram loolu moo amoon léegi en 2008 dañu ñu changé li nga xamanté ne moy suñu code de procédure pénale 2008 bon cour d'assises resté mais ñu changé li nga xamanté ne mo moo juré ñu génne leen ci mu nekk ñetti magistrat yu nga xamanté moy ay magistrat professionnel. nga xamante ne ñooñu bu ñu jugé ba paré vous avez juge d'instruction bu directement renvoyé devant la justice de jugement ba cour d'assises la chambre d'accusation a am le dossier Donc le juge d'instruction bi a renvoyé devant la juridiction de jugement mais également l'ordre de prise de corps pour ñu exécuter. 2014 il la a yenn yu solo code de procédure pénale Madame li nga xamante moo une obligation nga xam ordonnance de prise de corps dans tous les cas nous ko doon exécuter demoon na ba moment bu nga xam depuis 2014 nous nañ ko bañ a exécuter mën nañ ko hmm. pas obligatoire que ki nga xamante ne mosuñu ko détenir. Hmm. wala ku nga xamante ne ko une liberté provisoire euh, bu ñu demee ba war a renvoyer ko ñu war juger devant la cour d'assises bu nga xamante 2014 après dafa ñëw nekk chambre criminelle. Hmm. Euh, c'est pas obligatoire que ñu jël la yóbbu la prison maintenant yow mi nga xamante dañ la joxoon liberté provisoire wala musuñu la woon détenir dafa am ay obligation yu nga xamante ne nag à part de ce moment là da ko am donc du ñu exécuter ordonnance de prise de corps mais yow da nga am obligation moo xam dang ko wara a da nga ko war a am maanaam boo jëlee article 238 daf né ki nga xamantene musuñu ko détenir wala dañ ko joxone liberté provisoire au plus tard la veille de l'audience dafa war a ñëw ci greffe bi greffe chambre criminelle bi présenté wu wane ni ah mankat maa ngi nii dañu ma war a juger suba maa ngi nii teew bu boobaa ñu daal def euh, euh, na laa koy sa audience d'identification bi daal di koy identifier ñoo ne ko waaw léegi suba na nga ñëw pour que ñu juger la mu dellu këram su suba ga mu ñëw ñu juger ko loolu article 238 wax article 238 boobu daal ciy teg ne su fekkee ne ñëwul nag à partir de ce moment-là le président de la chambre criminelle a fait exécuter ordonnance de renvoi bi nga xamante euh, de asafla ordonnance de prise de corps bi nga xamante ne mi ngi de renvoi bi nga xam juge d'instruction bi moom moo ce n'est plus obligatoire Il dafay nekk ci décision bi mais il faut exécuter mais ce qui ne wu obligation bi pesé ci yow article 230 wax ñëwuloo à part de ce moment là président chambre criminelle bi dafay exécuter ordonnance de prise de corps bi maanaam joxe ordre ñu dem jëli la daal di lay yóbbu la prison euh, à part de la prison jour jugement bi ñu génne la daal di lay juger. article 238 bi nga wax alinéa bu njëkk bi dafa con dafa dafa dafa euh, dafa aju ci euh, ci situation bi ñu nekk nii wala bi Ousmane Sonko nekk nii. si si si ci situation si situation boobu lañ nekk. c'est-à-dire que article boobu comme li mu li def mooy.

exécuter li nga xamante moom mooy ordonnance de prise de corps dafa war a dem daal di koy daal di joxe kayit pour que ñu dem jëli ji ko daal di daal di koy yóbbu mais nag boo demee ci biir biir biir am na yeneen article yu nga xamante ne moo koy mooy gën a le mooy gën a leeral hmm. c'est-à-dire que article 240 daf ne su fekkee ne joxe na ordonnance de prise de corps boobu pour ko ñu dem jëli ji ko ñu dem mënuñu ko jëli mënuñu ko saisir hmm. à part de ce moment là on koy juger par contumace article 240 C'est ce que la wax mënuñu ko genre gisuñu ko ça veut dire que gisuñu ko wala dem nañ fa conditions Et les conditions ne sont pas réunies pour que nous saisir ko hmm. bu nous ñoom bu ñu ñëwee ah, pour exécuter ordonnance de prise de corps mais on a été confronté à des à des situations où nga a ah, comme bouclier humain. par exemple nous bañ peut-être mu am euh, yenn un wala benn sang wala quelque chose comme ça Nous ñu juge bi mën na sur la base de cela daal ne léegi dañ koy juger par contumace léegi nag boo demee ci article 275 ak 276 cent soixante seize. foofu nag la ñuy la ñuy la ñuy la ñuy gën a xóotal foofu. article boobu daf ne su fekkee ne ki nga xamante ne dañ ko war a juger mënuñu ko saisir wala présenté wul juge bi dafay envoyé benn huissier de justice daal dina ko convoqué nañ la pour que ñëw nga ñëw ñu juger la mais boobu léegi ñëwuloo léegi huissier de justice bi daal di notifier moom répondre kooku kooku daal di koy bind ce procès verbal ñëw indil ko juge bi. Mm-hmm. article 275, le soixante quinze. de mm-hmm. bu ko juge bi juge bi am possibilité soit mu équipe il faut que impérativement mu ñëw teew bu mu def mandat d'arrêt ñu dem jàppi ko indi wala ok comme moom moom décidé ñëwul man constaté que ni ñëwul ak réponse et consort légui dama koy jugé par contumace loolu mooy article 276 à part de ce moment là moom mu ubbi débat yi ñu di juger en son absence décision bu nga xamantene da ci aajo mu doog mu mu ko mën jël jugement par contumance bobu yaa wax mu tijji débat mais ban ban genre débat lay doon est-ce que la défense ci euh, procès bu mel noonu am droit à la parole non non parce que comme li ma waxoon keroog li nga xamantene mo moo comme dans l'affaire voilà ci appel bi wala en matière pénale encore une fois que mu nekk matière bi comme comme mu euh, tribunal régional comme nek euh, matière correctionnelle wala mu nek matière criminelle lepp lu nga xamantene pénal la ki nga xamantene ne moom la ñuy jugé su teewul ay avocat mënu jël parole parce que comme lima waxone la fois dernière principe bi mom moy en matière pénale l'avocat fay représenter da fay assister mais ne représente pas donc nak boy assister da ngay assister ku teew bu fekké ne ñëw na nga assister ko

ki nga xamante à mon procureur demander une peine et puis je, juge je, juge mhm. jugement par contumace ça ne concerne que les crimes crimes parce que vous faites ne bu délit le défaut le jugement par défaut bu faites ne crime la euh, par contumace et puis il y nga une ma différence entre euh, euh, ordonnance de prise de corps. Mhm. mandat d'arrêt et mandat d'amener. parce que sànq dégg naa la nga wax euh, bu ñu bu ñu commencé ci ordonnance prise de corps bi après par la suite mën nañ dem ba ci mandat d'arrêt waaw parce que boo jëlee hmm. comme dama la wax ne ordonnance de prise de corps ça ne concerne hmm. ki nga xamante ne dañ def instruction ba mu jeex ñu war la renvoyer devant une juridiction de jugement bu nga en matière criminelle hmm. ordonnance de prise de corps loolu rek loolu la loolu kooku la donc ki nga xamante ne <coughs> dafa am benn dossier ci juge d'instruction juge d'instruction bi donne def instruction en matière criminelle donc liñ des lay topé dañ ko comme crime Nous devons dire, jeex war renvoyer devant la gestion de jugement chambre criminelle bu code de procédure l'ordonnance de renvoi est précédée d'une ordonnance de prise de corps d'accord donc avant ñu lay renvoyer décision bi nga xam moo lay renvoyer sax ci lay amaale en même temps ordonnance de prise de corps. Hmm. maintenant nag différence mooy bu njëkk dañ koy exécuter mais léegi exécution bi pas c'était pas automatique. mandat d' mandat d'arrêt. amnistie léegi léegi mandat d' arrêt bi moom soit ñu ngi lay wër gisuñu la. Hmm. ñu lancer un mandat d'arrêt. arrêt bu ñu defee mandat d'arrêt, arrêt mën na nekk ku ñu ku ñu ku ñu jugé ba condamné ko ba pare mën na nekk nga xamante ne guñ ko ñu lay recherché pour jàpp la. bu ñu ko defee ba pare. bu boobaa mandat d'arrêt bi benn ordre la bu nga xamante ne dañ koy jox force défense et de sécurité yi que mu nekk les forces militaires comme paramilitaires képp ku nga xamante day mooy takk der dañ naan la fu ngeen gisee Daouda Mine ba la nga xamante ne dañoo gàll ci moom mandat d'arrêt jàpp leen ko te bu ngeen ko jàppee prison bi gën a jege yóbbu leen ko ngeen déposé ko foofu loolu mooy mandat d'arrêt mm-hmm. léegi mandat d'amener nag mooy yow convoqué nañu la ñëwul ñëwuloo juge bi daal di jox ordre ñi nga xamante ne ñoom ñooy takk deri ne leen waa ji dem leen ngeen jëlal ma ko de gré et de force su ngeen ko demee new na ko ñëwal mu ñëw su fekkee ñëwul jëlal leen ma ko ngeen indil ma ko loolu mooy mandat d'amener. Hmm, mandat d'arrêt il faut d'abord euh, kii procureur bi ba pare c'est ça mandat d'arrêt. non non non mandat d'arrêt procureur bi mën na ko def comme juge du siège bi mën na ko def. Hmm. par exemple procureur bi mën na ko def juge bi nga juge d'instruction mën na ko def judiciaire du nga xamante a juger l'affaire en dernier ressort devant le tribunal wala devant la chambre criminelle mon na mon mën mon ko mën na ko jël. nii nii juge d' instruction na. non juste destruction instruction pare ci dossier bi. léegi fi renvoi amna na fi président chambre criminelle. mooy décision bu ñuy jël fi mu toll nii moom moo koy jël. Mm-hmm. su exécuté ordonnance de prise de corps bi moom collègue ce def su fekkee ni lancer mandat d'arrêt pour que ñu dem ko ko également moom moo koy def bu le ni mandat d'amener moom moo koy def su fekkee ni jugement par contumace également moom moo koy def donc dossier bi mi ngi ci président chambre criminelle bi nga alors gis nañu gis nañu ay partisans Ousmane Sonko quand même euh, def bouclier ah këram fële nga xamante ne mooy ca Conséquences conséquence su ñàkk a teewam ci lan la au plan judiciaire comme politique. waaw donc conséquence bi comme je ma la wax par exemple Teddy. bon je pense que. autorité yi mën nañ euh, na làkkee waat sax euh, pour éviter escalade ah que ñu utiliser peut-être la force dans dans dans tous les coups parce que tey comme ni ma la wax y a des yu nga xamante ne prévoir nañu même bu fekkee ni teewul mën nañ ko juger ci ci ci ginnaaw pour éviter peut-être un certain nombre de choses damay fàttali rek ni lu mel ni amoon na fi ay jamono en 2003. Mm-hmm. ba amoon na ci Mor Dam mooy euh, Khadim Bousso. si on se mm-hmm. rappelle que dafa. évadé woon. Touba voilà dem Touba. ñu envoyé woon la brigade d'intervention polyvalente ñu war ko jëli. xam nga ñu de façon Idriss Seck était premier ministre. ñu avons woon dañ koy jëli de gré ou de force. bon mom si boppam mu defoon déclaration nous n'avons jamais plus grand jamais mom du delluwaat di delluwaat kassa bi. et après bi bippi nak démé pour dem jëli ko de force. Mhm. après euh, officiellement. Mhm. on dit qu'il s'est suicidé et puis officieusement la famille pense que euh, tac der yi ñoom ñoo toujours été il y a eu comme bouclier humain sur la base des dispositions du code de procédure pénale def jugement en son absence daal di par contumace maintenant maintenant comme li nga wax conséquence bi mooy bu le par contumace à 99,99% de risque d'être condamné. Ah parce que si vous le délai article 414 du code de procédure pénale daf juge bi euh, dafay juger selon son intime conviction moy moy moy alinéa 1 bi mais intime conviction bi alinéa 2 bi dafa expliquer nan la koy amé ça veut pas dire que de façon man japp na ne Ousmane Sonko mom moko def dama koy condamner japp na ne Adji Sarr xam nga euh limu wax noonu taxawul dama dama dama acquitter alinéa 2 bu article 414 daf le juge ne peut fonder sa conviction que sur les pièces rapportées et discutées devant lui donc yow bu fekkee ni Adji Sarr ñëw na par exemple teg ay tuuma xam nga indi ay éléments teg ko ci table bi yow boo fa teewul pour dàq loolu. xam nga nga xamante nañ ko mën a discuter au moins ba dàq li nga xamante moom mooy accusation bi nga xam teg nañ ko ci gàll bi. donc c'est à tes risques et périls. donc c'est juste pour dire que su fekkee ni yow nous par exemple assister à un jugement bu nga xamante dañ ko def par contumace. Mhm. soo moytul dafay nekk lu nga xamante condamnation moom moo ciy mujj. d'accord te beneen bi beneen bi mooy. Mhm. beneen bi mooy ak nii mu demee nii mhm. jugement boobu dafay réputé contradictoire d'accord ça veut dire que day mel comme si yow da ngaa teewoon. ce qui fait que suñ la condamné à une peine. ferme décerne mandat d'arrêt même avez fait appel l'appel n'est recevable que su fekkee da nga constitué wu prisonnier tant que conseiller prisonnier nous mm. nous considérer appel comme appel pour nga xamante mm. Mm. alors admettons que l'ordonnance euh, prise ordonnance de prise de corps bi euh, amal Ousmane Sonko euh, tribunal enfin avant même le procès euh, est-ce que vous par exemple vous procédez procès bi passé après dañ koy Rebus, après il pourra vaquer à ses occupations en attendant une autre date. Euh, une question qui me pousse à poser une autre question moi, est que maître Ciré Clédor Ly par exemple premier jour bi euh, audience du am procès du donc il koy renvoyer donc est-ce que c'est, on peut confirmer cela non renvoi na effectivement ce na fait su que ne juge bi estimer parce que euh, le juge me renvoie d'office Me renvoie également sur demande des parties Me renvoie sur demande du procureur de, l'avocat de Adji de l'avocat de Ousmane Sonko mais l'avocat Ousmane Sonko dafay fekk Ousmane Sonko d'accord comprends Renvoie renvoi me na am su juge bi estimer que les conditions ne sont pas réunies pour que nous juger parce que le code de procédure prévoit que le juge me renvoie pour une prochaine session de la chambre criminelle mhm. parce qu'encore une fois la euh, chambre criminelle beaucoup de comme une juridiction justement voilà pour pour préciser exactement ce qu'il a dit la chambre criminelle obéit à des règles spécifiques de procédure. avec des exigences de respect sur le plan strictement procédural. des formalités obligatoires et préalables. Ah. Euh, dafa faut que amul. procès formalités préalables formalité préalable il faut que tu nga un juger nous envoyons une citation en bonne et due forme mu jot ko en bonne et due forme. nous mmh. ex mu jour sangam war nous juger vous faites également dafay am d'identification ñu wax d'identification jour sangam la. d'avoir mmh. war et donc citation boobu da ko également juge bi la preuve que ni jot nous la retour citation. Mmh. bu citation pare ci que ñu war koo jugé kat jot na citation bi. Hmm. à part de ce moment là dans son dossier il a tous ces éléments là bu waaj ñëwul day jàpp ne moom moo bëggul ñëw. Hmm. mais su fekkee ne amul élément yooyu. il sera dans l'obligation de renvoyer d'office mon ami euh, maître ci loolu la basé ci loolu basé waaw donc éventualité bi ma doon wax waaw ah. léegi nag léegi nag éventualité bu fekkee ni exécuté nañ li nga xamante ne ordonnance de prise de corps hmm. ordonnance de prise de corps bu ñu ko xasee exécuté ba pare donc dafay dafay dafay dafay dem jusqu'au bout de la procédure maanaam jël nañ ko par exemple exécuter une ordonnance de prise de corps ki prison jour où il ngay jugé dañ koy jël daal di koy indi. Mhm. jugé ko suñ ko jugé par dañ koy prison. D'accord. voilà même si vous renvoyé voilà même prison su fait ni dañ condamné à partir de ce moment là day reste prison purgé penam su fekkee ni dañ mhm. acquitté à partir de ce moment là nous ne ko pas mu d'accord mhm. donc à partir du début mënul comparaître libre. à part Vous pensez que bi xasee commencé mënul comparaître libre quoi même si vous fekkee ne am renvoi. non non non en fait su fekkee ne par pas exécuté vous bu pouvez pas teew comme par exemple nous sommes, nous mhm. bu ñëwee teew par exemple nous audience d' identification ñu juge ñu identifié ko ba nous mu ñibbi këram. Mhm. jour procès également nous na ñëw librement ñu juge ko ba pare après mu delluwaat këram. maintenant c'est au cas où. mu mhm. bañ a ñëw exécuter ordonnance de prise de corps bi. wala article 138 prévoir le juge bi estimé que sa détention est obligatoire mu deser mu exécuter ordonnance de prise de corps bi. donc bu faites ne exécuté wuñu ordonnance de prise de corps bi mën na ñëw ñu juge ko mu delluwaat këram buñ ko condamné à part de ce moment là bu lañu def mandat d'arrêt ñu do ko jàpp yóbbu. Hmm. alors Daouda ça m'a échappé un peu kon avocat mi bu fekkente ni ñëwul avocat mi tam duñu plaider c'est ça. ils n'auront pas droit à la parole. Hmm. Moi, mooy li ma expliqué parce que en matière en matière. Euh, na la wax sax euh, pénal hmm. l'avocat encore une fois dafay da fay assister mais du représenter donc yow bo teewul rek dafay mel ni comme si say avocat même buñu ñëwé duñu considérer que ni say avocat lañ parce que duñ ils pas droit à la parole. d'accord pour reparler ci désobéissance civique bi nga xamné mom la woté et vendredi on nous apprend que mom def pourvoi en cassation ci euh, kii bi. ci euh, procès Mame Mbaye euh, est-ce qu'on peut parler de contradiction ci mbir moomu. waaw waaw man man man li ma mës a li ma mës wax mom moy euh dëkk boo gis dafa am dafa am ay règles yu nga xamante ne moom moo moom moo mm-hmm. que sur le plan politique tu peux faire des déclarations mais les déclarations politiques engagé vous dul ki nga xamante ne moom moo ko mm-hmm. sur le plan du droit dafa am procédure. de procédure boobu ala kulli alin su fekkee ne da ngaa bëgg réellement nga am gain de cause. Mm-hmm. di nga déposer ay actes. su fekkee ne dañ ne dañ lay juger. jugé nañ la fu nga xamante ne fekke woo ko jugement boobu ñu rafet ko ko di nga def appel ala kulli si vous ne le juger en appel condamné le également même si vous nous avons des woote civiques. civique xam le délai bi décision n'est qu'une une décision définitive Si vous décision une décision, tu as l'obligation de poser un acte pour mooy en cassation donc je bon comme je l'ai dit, si sur le plan politique am lu mais sur le plan juridique également nous avons ci ay parce que moi je dis que ne Ousmane Sonko ni mu am ci ay avocats ils font partie des meilleurs des meilleurs yu nga xamante ne ñoom ñoo ñom ñoom ñoo ñom ñoo ñoo fi moi je m'étonne même hein, parce que chaque fois damay dégg euh, y a un avocat français là Branco Branco mm. chaque fois damay gis gars yi naan way il est il est il est bon et consort mm-hmm. Branco man sama conviction personnelle mm-hmm. moo di lu mu ay ay ay ay ay ay waxuma ne ayul de mm-hmm. lu mu ay ay ay Branco ne peut pas connaître mieux que M. Ciré mieux que Bamba Cissé mm-hmm. mieux que Maître Ntede euh, nala tuddati euh, na laa mm-hmm. mieux que Nyom Nyonyo. Nous les la procédure sénégalaise mm-hmm. xam nga ñooñu ñooñu buñ ko ko ma conviction profonde est que nous que donc je m'attends à ce que nous branco branco peut-être sur le plan international amna ay mais sur le plan du connaissance. Mm. des connaissances du droit sénégalais. Mm-hmm. ces avocats là nous un mm-hmm.

jusqu'à 0 heure les jours. voilà bon minuit les jours. donc au plus tard la veille il faut représenter l'article de loolu donc tey jii tey disons ba minuit mhm. am possibilité de présenter au niveau au niveau du greffe su fait ni ñëwul a le jugement est décidé Il ndax exécuter ordonnance de prise de corps Voilà, wala appliquer les dispositions de l'article 275 mhm. ça veut dire que huissier

su ñëwul mën na exécuter ordonnance de prise de corps mais article boobu également ci dernier alinéa bi prévoir na que ne juge bi mën na d'office exécuter prise de ordonnance de prise de corps donc fi mu toll nii mu ñëw mu ñàkk ñëw juge bi am na droit ñëw ne ah man je considère que la détention est obligatoire xam nga mhm. exécuter ordonnance de prise de corps donc à lu juge dossier d'accord, euh, jugement par contumace hmm. est ce que euh, am impact conséquence euh, peine ça ne change absolument rien du tout Il y' a 99,9% de chances que vous hmm. faites contenir par contumace le condamné waaw parce que fofu noonu fofu noonu peut-être li nga impact bi muy am. Hmm. euh circonstance atténuante bu nga xamantene bu juge bi demoon ba jàpp ne par exemple euh, benn kii <coughs> na kii na laay asafula culpabilité euh il y a possibilité à ce que mu def ay circonstances atténuantes. Hmm. par exemple nit ko bu ñëwé fekke procès bi ñu plaidel ko. Hmm xam nga juge bi dem jàpp ne ah wax dëgg yàlla bon jàpp nañ ni peut-être lii moom moo ko def waaye am na ay circonstances atténuantes yu nga xamante ne mën nañ ko ko faire profiter. Mm-hmm. bu boobaa juge bi bu fekkoon parce que loolu atténuante bu amee suñ la waroon condamné par exemple benn peine peine bi mën na wàcc. Mm-hmm. peut-être loolu ngay nekk lu nga xamante ne boobu da nga koy ñàkk mais toujours est que les peines yi nga xamante ne euh, code pénal da koo prévoir.

ci benn pro même procès bi la wala loolu tamit beneen affaire là. non c'est la même affaire. Mm. c'est-à-dire que le même dossier. mais donc ça veut dire que euh, Ousmane Sonko sous teewul Ben nous def procès euh, ndaw si Non ah, bokk. bien lay demee. Mm. cest veut dire ça cest dire que une même affaire affaire suite Beauté. Mm. moom ñaari personne ñu nga ben nous dañu une ci incriminable. Bon, quoi les instruction bi benn la. Mm-hmm. la même ordonnance de renvoi. xam nga moom moo concerné ñoom ñaar ñëpp muy Ndeye Khady Ndiaye ak Ousmane Sonko bo Ousmane Sonko dafa am lu nga xamante mom lañ ko topé muy viol euh, ak menace de mort jëlé pa am Ndeye Khady Ndiaye dañ ko pousser pour complicité de viol mais dañ ko dañ ko dañ ko également pour incitation à la débauche ñom ñaar ñep ñu devant la justice de jugement donc lima expliquer expliqué en ce qui concerne Ousmane Sonko les mêmes obligations yoy également dafay peser ci ci ci ça veut dire que tay tay tay Ndeye également puisqu'elle n'a pas été détenue mom mm-hmm. aussi au plus tard la veille dafa am obligation moom tamit teew

parce que euh, l'article L29 mhm. du code, électoral, ne peut oui. premier alinéa mhm. ne peut pas s'inscrire sur les listes électorales il ne ceux qui sont condamnés pour crime ah. ceux qui sont condamnés pour crime Moi, moi, numéro 1. voilà moi numéro un mhm. ceux qui sont condamnés pour crime donc nous pouvons koy juger pour un crime parce que le viol est criminalisé encore une fois depuis 2020 ce fait qu'il est ko jugé par contumace déclaré coupable ce fait que les voies de recours sont épuisées ça veut dire que des appel xam nga ñu dem délai de passe na ba euh, une décision définitive une décision bu nga avons dafa am de la chose jugée. Mhm. à part de ce moment là c'est une condamnation pour une galère de corps. et ça a forcément des conséquences sur le plan juridique donc vous bu vous boo xoolee article L30 moom moo koy concerné donc il peut pas s'inscrire sous les droits pour une durée de 5 ans parce que 6 mois avec sursis lañ ko condamné mais si bu faites qu'il dañ ko condamné pour viol xam nga euh, il a été condamné pour crime D'abord, en matière de crime condamnation pour crime waxuñu sax un mois wala deux mois wala trois mois il suffit tout simplement que ñu condamné euh, voilà ñu condamné la pour ah. un crime et automatiquement

dañu ne stabilité réew def ci rax légui ba amna sax ñu yëkëti kàddu naan dañu tek mbir yi ci suuf mhm. est-ce que ak fi procédure yi tollu ni tay di lolu c'est possible dans une république comme le Sénégal non les privilégier stabilité réew ngir bayyi coow euh, non en fait en fait il faut que ñu comprendre que <coughs> dëkk dafa am dëkk bo mën di gis mhm. dafa am ay règles yu nga xamante moom lay doxé Sénégal dañ japp né c'est une république mhm. Si buñ une république nag xam nga buñ une république dafa am par exemple un état également c'est une définition universellement reconnue un état avons le premier année droit dañ la c'est un territoire sur lequel vit une population et sur laquelle population s'exerce un pouvoir pouvoir est un dañ pouvoir exécutif législatif et judiciaire y a des lois qui nga régir le fonctionnement d'un pays c'est le droit positif c'est l'ensemble des droits qui l'ensemble des lois des codes en tout cas qui nga régir le fonctionnement d'un pays je ne peux pas mandat être dans un pays bu nga régi par des lois pareilles et lois également de ça ne s'applique pas si man su fekkee nañ jàpp ne une loi dafa une loi bu nga xamante loi ba baaxul dañ ko soppi par les voies régulières yu nga xamante moom la prévoir mais tant que cette loi là est en vigueur c'est une loi qui s'applique mm-hmm. donc dans un pays bu mu mën di doon il peut pas y avoir par exemple quelqu'un bu nga xamante ne dañ ne dañ ko tuumaal ñu war ko juger devant les juges les juridictions compétentes ñu ni non jugement bu du am parce que lii parce que parce que par lale règlement buy am la juge est le dernier rempart règlement buy am c'est en matière judiciaire moom mooy am il peut y avoir des pourparlers xool na régler ay problèmes problème affaire genre sur un certain nombre de choses loolu mënul ñàkk et consort mais toujours être que la décision définitive c'est une décision que nga xamante justice moom moo dans cette affaire là comme on l'affaire affaire avec Ousmane Sonko nous avons ba ordonnance de renvoi dans tous les cas il ne peut pas ne pas y avoir un jugement mmh. mënul mënul mënul bañ est-ce que le jugement après un jugement d'acquittement ou bien un jugement de condamnation C'est ce que je veux dire. maintenant moi ma conviction est que si Ousmane Sonko s'était présenté encore une fois devant une juridiction de jugement mhm. bu on foofu ñu war ko juger également euh, li li texte wax moom la décision bi nga encore une fois article 414 les preuves qui sont amenés et discutés devant la barre. Ça veut dire que tay tay tay, du doon rek waxu Adji Sarr mom si loolu lañuy basé pour condamner ko. waxu Adji Sarr fay nek wax yu nga xamante par des preuves yu nga xamante ci juge même si basé pour nous condamner. et depuis que nous criminaliser li nga xamante mom moy viol. mais aucun juge n'ose condamner quelqu'un à une peine bu nga xamante allant de 10 à 20 ans dans amul ay preuves yu tangibles avant muy muy muy condamner maintenant il faut que la personne même si bopam def l'effort de se présenter bu boba juge appliquer li nga xamantene ne moom décision nga xamantene qui sont prévues par la loi man loolu la japp merci merci beaucoup euh, aladji Daouda euh, leer na merci ci jàngat bi légui euh, légui dañuy ñew jall ci ponk bu mujju ci Infos Matin.